ñeenteelu xaaj bi ci juróom-ñaari xaaj yi bi ibraam amee juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent yàlla feeñuwaat ko yàlla fasante ak ibraam kóllëre né ko maay sa yàlla ak sa yàllay askan yàlla may ibraam ak askanam réewum kanaan ba faw Ibrahim ak képp ku soxe ko ci moom tey góor waroon naa xaraf muy màndargaal kóllëre gi yàlla fasante woon ak ñoom xaraf mooy màndarga gi ngir askanu Ibrahim bañ a fàtte ne ñoom la yàlla tànnoon waroon nañoo jub te doon ay sëriñ ci xeet yi leen wër yàlla Ibrahima muy tekki baayu xeet yi yàlla soppi turu saara tuddee ko saarata te muy tekki lingeer yàlla ne saarata dina am doom ju góor ñu war ko tuddee isaaxa muy tekki reetaan ndaxte saarata dafa reetaan ba mu déggee ne dina am doom ju góor te fekk màggat la woon yàlla ne li mu dige ci askanu isaaxa la koy jaarale léegi ma laaj leen juróom ñett gan kolore la yàlla fas ak ibraayima yàlla fasante na ak Ibrahima kóllëre ne ko maay sa yàlla ak sa yàllay askan yàlla may Ibrahima ak askanam réewum kanaan ba faw Ibrahima ak képp ku soxi kaw ci moom tey góor waroon naa xaraf muy màndargal kóllëre gi yàlla fasante woon ak ñoom xaraf mooy màndarga gi ngir askanu Ibrahima bañ a fàtte ne ñoom la yàlla tànnoon waroon nañoo jub te doon ay sëriñ ci xeet yi leen wër juróom ndax yàlla nangu na la doomu jaam bi doon maamu musalkat bi déedéet yàlla nee na li mu dige ci isaaxa doomu sarata lay jaar